laataa ñu dugg ci combat bi d' nga expliqué ñu ki nga xamante mooy forme forme euh, euh, Gris Bordeaux parce que vraiment Gris Bordeaux ñu ko doon xaar mu gën a wàññi li nga xamante moo di maasam mais dañoo gis dafa gën a yokk biir bi tamit def nii carrément wax dëgg fa yàlla expliqué ñu ni nga gisee li nga xamante moo di forme euh, le tigre de Fass. waaw le forme tigre de Fass xam nga forme ay aspe la ak ay entraînement yu la koy jox mooy li may wax tout le temps Gris mu ngi koy léegi. la masse musculaire pondérale volumineuse wala sec boobu dafa am lu koy définir ci wàllu lekk ci wàllu entraînement ban entraînement ngay def c'est du HIIT wala LIIT wala cardio training la wala musculation la wala sport de combat corps à bi ngay def bu ci nekk dafa am pàcc boo koy jox mais bi muy tey da ngay gis ni ci maninam lañ ko fekk. moom mm-hmm. pour wàll ne la te beneen leçon am na tey. muy xale yi dugg nañ ci antichambre bi. ah c'est clair jeunes yëpp ñoo gagné. c'est clair ñu nekk xale. Mhm. c'est vrai ah booy xool tey tey làmb ji effectivement ji. Mhm. dàq na paa bi paa bi jéem ko nax. Mhm. yaay mais boo xoolee Ama Baldé. Euh, Adafas Adafas Liss Ndiago Liss Ndiago. génération bi ci suuf xale yi xam nañ ne ñoom dañu war a ñëw jël li ñu moom. déglu am round d'observation étudier def. xool fan nga war a jaar ak looy indi ab stratégie boo teg mais Gris Bordeaux mu ngi doon préparé mais toog na fi lu yàgg bëriwul. Mm-hmm. depuis contre Balla Gaye ci na fi forme boo xam ne macha allah. Mm-hmm. mais après dafa am cassure. Mm-hmm. arrêté combat moog Balla Gaye am na nu mu doon demee day jeexal combat bi. mais li mu indi tey manche bi mi ngi fi mais da xam ne volume bi moo ëpp. donte bu dee bindam la noonu la mel. mais volume bi boo ëppee. Mhm. vivacité ak motricité bu ak rapidité bu vitesse d' exécution bi. Mhm. du du du gaaw. bu demee bu avant mu ne yokk su giri ba dóor ko coup boo xam ne moom loolu la daan def. Mhm. kon am na lu wàññeeku ci moom. ça dépend bu dee daf bëgg a nag mu dem defi it entraînement. bu metti sax bu metti c' des entraînements à haute intensité par intervalle. mais est ce que ak seen age waaw loolu da si joué te yaram am na fu muy toll ak noos yu neex yu nooy petit déjeuner au lieu comme ni ko ay yenn dessert euh, salade de fruits ak cocktail yi waaw war a contact ba os. ñu mm-hmm. tegal la 15 mbër ku ne nga am ak moom benn une minute deux minutes. Mm. loolu da dem ba sa xol bi day kooku il faut que nga toll. bëgg am dara il faut sacrifice quoi. mais koy def ba léegi mais am na loo xam ne boo ko amee yenn yi doot loo ko jarala ci parce lii dafa metti mais dafa metti mais mais ku